actualité bi ak engagement bi nga xamante ni am na ko xalifa Rappeur nekkoon na koo xamante ni ah, da daan xalamal nguuru Macky Sall ak Marème fay sàll jékki-jékki daal di euh, changer casquette lu ni mel lan moo ko waral euh, tey jii tamit ñu gis ni dafay dal ci ay nit yu bare bare ay autorités yu bare bare yu nekk ci réew mi. Euh,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 laa xawla wala xuwata illa billah al azim salaamun qawlan min rabbi rahimin qulama awqadu naaran lil arbi atfa allahu alors xalifa rappeur la làmmiñu askan wi ma la waaju noonu naa feq ya tos ñebe muy bud budi waaw di bud budi si dëgg ak si jàmm ak salaam fii si réew mi fm alors asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu sénégalais yëpp yuy déglu di nuyu sénégalais yëpp yu seedaan. di la nuyu yow Ndeye Comba bisimilah. voilà ñu lay remercier ci sa disponibilité mais rap xalifa euh, waaw euh, tous ñebe but buti exactement lan la signifie. tous mooy dara dara dara lenn kenn dara amu fi lu dul yàlla yàlla ji kase fi nekk yaa ngi dégg waaw. laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu wa sallam loolay esprit tous dara. dara du xew fi yàlla kase fi nekk. waaw maanaam faale maanaam tous ñu koy wax depuis deux mille dix huit xam di ko dund ba booy ñuy fréquenté di ñu jël di ko yóbbu seeni koñ ba mu dem ba ay géwél woy ko ak ay fecckat xam nga ñu bëgg ko sàcc tuddee ko seen bopp xam nga sénégalais yi xam nañ nu mu demee quoi mais tous ñun la quoi ñun ñoo ko yàgg dund xam ñun. waaw tey sey su ma nee ñun mooy maanaam estur bi lekk man ak samay gars yi xam nga ñun ñuy maanaam gang bi lekk xam nga yaa ma gën a xam mafia bi waaw. ban mafia. waaw loolu waxin la. xam nga su nee mooy mm. suñu groupe lekk sama gars yi sama gars yi may toogal di dund ak ñoom di nekk ak ñoom xama nga. Mm, mm. la famille quoi. mais terme bi nan la ñëwee exactement. waaw nii la gaa naturellement naturellement loo xamante ni gaan xam nga parce que ñun ay doom met naa nañ. defu na ni ñuy dugg si town bi xam nga waaw. léegi nag xamal rek affaire bi moom ñëw na naturellement waa gars yi comme ça maanaam sa dëgg da nga wax lu mu la mënti coûter tamit da nga wax. noonu la faale woo ci kenn. toos yàlla kase fi ne comprendre <laughs> waaw mm-hmm. lépp maanaam yàlla ji la. Mm-hmm. alors bi gars yi ñëwee ñëw sàcc affaire bi. ñëw maanaam sàcc. waa Tous Tasar. waaw te Tous Tasar boo déggee ñu ne Tous Tasar benn géwal xëy na moo ko jël. Mm-hmm. forcé ko booy yooyu noonu xam nga ñuy waaw moom ba si woyam sax mi ngi koy wax naan xama tous lakk na dëkk bi tous xama waaw parce que ñun ñoo ko yàgg a dund. maanaam da ko copier ci Khalifa. non waaw mais mooy li ma la wax parce que xam nga su ma la nee ñun. Hmm. maanaam ñun du ñun kase ñun ah, xëy na ñun ay jaam xeebu nañ. waaw mais loolu da nga ci war a neex. parce que xamul tax day wane ñun li ñuy dund dëgg la. Hmm. day wane ñun li ñuy dund maanaam mi ngi jugee suñu xol di tàbbi si yeneen i xol. Hmm. te loolu alhamdulilah yàlla may nañu ko parce que ñun façon sénégalais bu nañuy toogal façon sénégalais bu nekk nañuy rencontré di dugg fu ne si town bi xam nga kon bu ñu demee ba sénégalais yi maanaam di référé wu si ñun di jël suñuy kàllaam ak suñuy kàddu yëpp di ko def ay son ak yooyu loolu ndam la kañ sant yàlla la xama mhm. mais bi gars yi indee tous tasar bi jël affaire bi maanaam. détourné ko dénaturé ko quoi. waaw dénaturé ko bugg wane ne affaire bi ay fecc la ay jonxan dafay affaire xama ñu ne leen affaire bi du loolu esprit tous. Mhm. du loolu du négativité. te du ay caaxaan ay dafay diversion nii non non bi. vision la maanaam pour vision que ni maanaam yàlla kase fi ñu liggéey Sénégal mu jëm kanam comprendre na mhm, moo tax mu indi ñebe ñoo mhm. la demee moo tax ma dolli si ñebe <laughs> waaw te gis ngeen maanaam dëgg mooy mujj ñebe bi bi ñu si doolee mhm. bi ñu si doolee ñebe bi dafa but buti <laughs> ba nii may wax ak yow ñebe baa ngi but buti si réew mi <laughs> te ñebe maanaam dafa yomb te dafa baax fer la day may deret te seerul tamit du dëgg waaw gis ngeen ferñeent yi maanaam pour wane ni simplicité lu simple nu mu baaxee ko waa àdduna boo xool yàlla lépp la yombal. Mhm. nit ñoo ñëw di ko compliquer waaw muy but buti ndax but buti bi mooy baatin bi waaw mooy maanaam lépp lu am si àdduna bi rek mi ngi but buti di dem. yàlla kase xam lëpp xam nga. ayca loolay tuus ñebe muy but buti buti buti te yeneen i kalaama incha allah di leen ñëw yu bees. waaw léegi xalifa lu la dugal ci rap. waa rap à liggéeyal sama réew xam nga à la base parce que hip géej la noonu la demee hip booy xool mooy xam-xam dictionnaire géej loo xamante ne ni saa waay xam-xamu àdduna bi yëpp la tënk xam nga mm-hmm. mooy maanaam côté musicalité bi ax bége bi xam nga moo tax hip rab mun nga rab si mbalax mun nga rab si asiko dansoo lu la neex nga rap parce que hop bi bàyyiwul dara amul frontière loolooy hip hop. Mm-hmm. hip nax nekk na loo xamante ne nii maanaam àdduna la te boo demee maanaam lu si mel ni États-Unis gis ngeen hip hop bi nu mu amee doole te c'est la puissance numéro un mondial du dëgg États-Unis parce que seen hip hop am na lu muy contribuer ci seen réew parce que culture dafa am solo si réew. Mm. yaa ngi dégg noonu la demee alors hip hop nekk loo xamante mun nañ fa jaaree dafa réew gis nañ euh, deux mille onze deux mille douze <coughs> mouvement Y'en a marre bi nga xamante hip la. parce que ay hip hopeur kese si nekkoon gis nga ni ñu contribuer ak liggéey bi ñu defal Sénégal. Mm-hmm. ba daaneel nguur du dëgg. waaw alors hip dafa am lu am solo maanaam si contribution réew si développement réew xam nga noonu la demee. mais est-ce que yow contribuer tey yow ñun moom personnellement ñu ngi contribuer si développement wu Sénégal yow nan la ñëwee naturellement wala. waaw naturellement am na am na peut-être lu la dugal ci hip hop. benn fee bu ndaw waaw xam nga xam nga hip hop affaire de la. si medd bi ngay nekk gaa ma la sum waaye xam nga mu mën a ñëw si yow maanaam képp kuy hip hopeur bi buy dugg si yow dina doon lu dëgg loo xam ni xëy na yàlla ji si medd bi la koy jaarale ku si nekk ndax am na jaar jaar xama ñun yàlla def na town fii nii ay doom mét naa nañ mais jot nañ dëkk fu bëri man dëkk naa Fass Colobane dëkk naa Sicap dëkk naa Nord Foire dëkk naa fu bëri si town bi xam nga waaw koñ fu muy neexee koñu noble yi fu muy wéetee man dara jaaxlu ma town muy bànneex ak nakar waaw ñun dund nañ lu leen si town bi alors ñu dem ba benn jamono mhm. hip bi yàlla def mu jaare si ñun dëgg la à travers sax dëgg la ay àndandoo comprendre man tey si tey man dama mbapat man si underground underground hip hop dama si mbapat parce que dama yàgg ànd ak ay crew ay groupe de rap yoo xam ne dañ doon yëngal bi concert yu am yëpp si temps bi da leen daan woo ñuy ñëw di yëngal ma leen di jàppal bac ma leen di bageel comprendre nga bageel booy xool mooy awu mm. comprendre nga tey si tey ñu dem ba benn jamono Ziz tamit laadaw di benn bërële boo xamante ni xëy na ba léegi mi ngi si underground mais incha allah kooku gëm nañ ni Sénégal na ko xami ndax talent te yàggul dara ku si ma ni Daddy son xëcc na ko si album am xam nga pour ñu joob parce que borom xam-xam la kàngam te Sénégal maanaam borom xam-xam yi ñu ngi fiy fees dell mais gars yi dañ leen di xeeb xam nga waaw. gis boobu bi ma ko doon bageel di àndax moom di ko bageel si concert yi ñuy dugg si concert yu nee si underground bi fépp xam nga si laa dem ndax ba gën a jàng lu bëri ba si freestyle booy xool bi may ànd moom si moom laa dem ba maîtriser ko waaw seen rajo bi maa fàllu réew mi FM daan fi ñëw freestyle. Mhm. jamono boobu Fata moo fi nekkoon ak ay rajo yu bëri fii seen dugg naa presque rajo bu ne jamono bi may nekk freestyleur xam nga. Mhm. bi ma daan bi ma nekkee freestyleur dama daan ñëw compétition gars yi na ma non doo bokku. Mhm. Mhm. waaw di la xeeb. non non ban xeeb dañ dañ ñaa man maa mag booy quoi. xamul moo tax ñu ne yow doo bokk. noonu la demee parce que boobu gars xam nañ sama niveau freestyle man sama téeb laa doon yor sama baaful. di dugg saawaay si taan bi dama daan ceene sax si boutique laa lay wax nii teg sama biit di freestyle gars yi wër ma barki alxuraan waa Gueule Tapée saawaay xoola ba si ay Delafosse gars yi xam-xam nañ est-ce que ay dégg mhm. waaw ak taan bi fu ne nañ daan dugg tey si tey nax ñu dem mbapat si underground mooy lu ma la wax dem ba maîtriser rap 2015 ma génnee sama premier vidéo single Make Money Make Money 2016 2017 ba deux mille vingt et un amul année boo xamante ni Khalifa rappeur toog na te génnewul vidéo single mais mais Khalifa rappeur fi ñuy taxaw si si début bi parce que question yi bari na te temps bi dafa gàtt mais mooy euh, si sa début carrière dañu gis ngay way Marème Faye Sall waaw parce que xam nga tey si tey Sénégal mooy lu ma la wax ñun bëgg suñu réew la ñu yàlla natoo. jékki-jékki waaye premier dame comme ça tey si tey <coughs> réew ni muy doxee mooy lu ma la wax ku nekk am na si ñu toog ñu di xaar suñu réew lu ñu defal dañuy xool lu ñuy defal suñu réew du dëgg bu ñu xoolee xam ne ñii nañ dénk suñu réew ñu xool première dame xam ni kat première dame bi mi ngi def yu baax yu rafet du dëgg ñu xool xalaat que ni xëy na ñu ngi doog am première dame boo xam ni jege na askan wi nii ak yooyu noonu yëpp yaa ngi dégg mais tey see lu dul dëgg du yàgg mooy lu ma la wax waaw ñun dëgg nañuy dund dëgg nañuy dund. démb li ko dund kon Khalifa da nga da nga da nga way première déglu lekk première ñëwul kees. parce que xamul tax. mooy lu ma la wax non mooy lu ma la wax may la. waaw tey si tey dëgg mooy mujj du dëgg. Mm-hmm. maanaam première dame bi ma koy woy yaakaaroon naa ni ku dëggu la ku bëgg Sénégal kuy def te yàlla rek a tax la est-ce que dëgg. Mm-hmm. te ñun woyuñu nit ngir alal ñun alal jaaxaluñu am ko ñàkk ko nañu yamale ñun yàlla nañuy dund. mais dafa neex rek tey si tey nit ki bu la defalee hommage surtout ñaari yoon loo xam ne yow nit musuloo ko defal rappeur Sénégal musul way première daam musul am lu gën a rafet boo ko dégloo nga jéem a même bu dee boo leen gisantewul sax appel sax wala message sax nga maanaam remercier loolu rek dafa rafet mais tey si tey baadoola baadoola rek lay doon ba keroog muy dee du dëgg. kon boo dëgguwul bu fekkee yow li ngay def yow. Mhm. nga ni yow dangay ngay nga ne yow da ngay def Sénégal pour ndawu Sénégal ak pour doomu Sénégal nga ne da ngay def pour Sénégal te du dëgg si yow te du maanaam defoo te yàlla tax da ngay def peut-être ngir politique wala pour am tur wala dara xam nga kon tey say genre yi rek la quoi xam nga keneen su kii da nga naan ak ah, kii de xëy na lii la bëgg wala vision boobu ngay am. parce que yow la message la lijjantiwu la. ak way yi nga ko woyal ma ko woy ñaari yoon yëpp ñaari son yi ma ko woy yëpp dégg na ko. waaw njabootam déglu nañ ko muy ay doomam ak ay frère am ak ñeneen ak ñeneen. mais message wootewul ñëwul kees woote ma. faalewuñu ma ñëwul kees waaw bàyyil kees amul ah, solo. garaawul mais xalifa bi ngay woy première dame bëggoon nga mu joxe dara. barki Maulana Cheikh Ibrahim su ma woon téléphone sax. waaw remercier ma si loolu ma tóojal ko xam ni kii gor laa. mais su la woon pale jox la xaalis doo jël. déggoo lu ma la wax. waaw xaalis yow la jaaxal xëy na mais man jaaxaluma. ma ah, mais man xaalis su ma fekk la may bàyyi. man dara fëqul sama bët. waaw ok mais dama ni la maanaam. même su ma woowoon téléphone. wala mu message ma. na ma déglu naa son bi kat. merci beaucoup loolu rek wax ñaari kàddu yooyu kase déglu naa son bi merci beaucoup. Mhm. loolu rek bu ko defoon ma xam ni kii gor la ma nangul ko du dëgg. xam ni kii li muy def pour intere Sénégal man tamit def naa ngir yàlla parce que man lépp lu may def te yàlla rek a tax laa ñëkk def mais juum nga def si nit nga dem ba xam ni kii kat naka dëgguwul du kii mooy waaja. parce que baadoola la dafa déglu affaire ba pare di jéem a ñun faalewuñ la ak képp koo mun ti doon boo ñu faalewul faalewuñ la. yaa ngi dégg léegi looloo tax nga jékki-jékki rek tourné rek di xeex régime bu Macky Sall xaalis jaaxaluñu non non dama dem ba xam ni waaw ñii la mm. Marème Faye dama ni la man dama dem ba xam ni parce que ñun si réew mi nañ dëkk di fi yeewoo chaque jour di dugg fu ne si taan bi xam réew mi ni muy doxee mais dañ dem ba xam ni Sénégal doxul Sénégal metti na jikko yu ñaaw yi mi ngi gën a yokk mbonte yi ñu ngi doog ñu ngi gën di yokku est ay dégg mm-hmm. ay ay discrimination affaire yu mës am Sénégal di am Sénégal ay affaire de xeet. Mm-hmm. bon yu ñaaw yëpp ñoom ñoo ko fi indi Sénégal fii ñu dem ba yeewu xàmmee ràññee xam ni ñii baaxuñu pour intere Sénégal xam ni ñii ñooy yàq réew mi ay baadoola nañ. ñan ñooy baadoola yi ñoom ñëpp muy salmaki bi ah. waaw xam nga Salmaki moo tax moo tax ma tënk lépp ne Salmaki parce que Salmaki yow léegi dafa mel da ngaa ragal waa régime bi de waaw su ma nee Salma wala nga leen di nommé da nga koy xalaataat de. non xam nga Salma am na fu hmm. déggul rek ñun amuluñu lu ñuy ragal. ñun hmm. yàlla la ñuy dund ñu xam-xam nañu mais su ma nee Salma ki mooy ñoom ñëpp parce que mënu fi nekk di leen lim di leen di leen parce que jaruñu sax lim duñu hmm. dara. tekkiwuñu dara waaw ay arriviste nañ. waaw yaa dégg du ma fi sax nekk di leen lim waa di leen di leen may loo xamante yàlla wuñ ko. waaw mais su ma nee Sall Macky ñoom ñëpp la tënk. waaw dirigeant yëpp la tënk. régime ñëpp A ba Z. bàyyi woo ji Sall Macky mooy Sall Macky quoi pour muy clair donte ni Sall Macky bi. Mhm. parce que lépp du doo Sénégal nañ nekk. Mhm. du dëgg am na si ñoo xamante ne ni maanaam maanaam ñu ngi xool maanaam. seen yar parce que am nañ yar bu baax. Mhm. am na si ñoo xam ne am nañ yar bu baax quoi. parce que dajale. bennoo bokk yaakaar. am na si ñoo xamante ni ñu baax nañ. comme ñan xanaa dafa ah, am ñu eh, eh, commencé di la jox ay affaire non déglul rek man dëgg laay wax te yàlla rek tax xama xama man xama man sama sëriñ sax waaw Benno Bokk Yaakaar boo ko dajalee am naa fa sëriñ am naa fa xam naa fa ñu bëri ñoo xam ne ñii Mm. ñu ngi liggéey pour intere Sénégal ah, parce kaa moxla bu ñëpp su mm-hmm. ñëpp liggéeyul woon mm-hmm. su ñëpp àndandoo maanaam di bon maanaam amul amul woon si maanaam salmaki bi su aw su su ñëpp su su amul woon kenn ku si def lu baax mm-hmm. wala di maanaam sax ruus sénégalais yi di jox cër sénégalais yi di def lu baax pour intérêt Sénégal kon askan bi màbb nañ bu yàgg lijjanti leen fi génnee leen fi bu yàgg du dëgg. yow léegi da si am ñu baax. Mm. non bëri nañ mooy lu ma jërul ay nekk di lim. am na ñu si tane daal. am ma ne la am na si nit yu baax. Hmm. mais nit yu baax yooyu sax booy xool malheureusement. Mm-hmm. amuñu benn envergure wala benn tour wala benn succès bu sénégalais yi di leen coow est-ce que mm-hmm. ñooñu kenn du leen dégg si dara. xam lu ma la wax boo leen déggee ren balaa nga leen di déggaat déwén te saa nga leen déggee si lu baax nga leen di dégg mu suñu am problème ak ay of nag ak suñu cour de contrôle yi nekk Sénégal est-ce dégg te avant tey nii sax avant Macky Sall di falu sax ñoom xëy na tekki nañ bu yàgg. est-ce que yaay mhm. am na quoi loolu du ñaax. waaw waaw du ñaax mais xam nga tamit nit da ngay dëgg te yàlla tax. waaw léegi mais Sénégal wax la ñu naan noo xaa da la ah, jox xaalis. demeewul noonu ñun dëgg rek la wax ñu ne peut am na ci saal Macky bi ku génn xëcc xaaf jox xalifa jox ko xaalis wala des man dëgg rek laay wax. non mais leeral la rek kenn joxu la dara. non man dëgg rek laay wax. mooy lu ma la wax. non xalifa dëgg bi laay wax. mais neel kenn joxu la dara am na suñu baax baay kenn joxuma dara kay lan lañ may jox kenn joxu dara baay salmaki bi lan lañ baay yow kenn joxuma doos ngaan maa waay yow baay yow day bud budi nii sama kaw <laughs> léegi kenn joxuma dara léegi euh, yow activiste nga wala doo activiste nan lañ la a tuddee parce que yow léegi rappeur la léegi da nga génn si cadre rab bi carrément c'est vrai que rappeur nga mais léegi da génn si cadre rab bi sol benn casquette man musuma revendiquer ne activiste la ñoom au contraire sénégalais yi ñoo naan kii activiste la ñoo ma naan activiste du dëgg. no yow moo tax ma laaj la affaire ah, bi. ah waaw mais parce que man. porteur de voix la man porteur de voix la man damay wax di waxal askan di waxal réew boo gisee làmmiñu askan wi maanaam askan xam nga làmmiñu askan wi mosoo ko dégg de. Mhm. waaw. nguuru Abdou Diouf a ngi fi nguuru Ablaye wadd ba si nguuru Senghor sax nguuru Macky Sall képp kuy sénégalais biir Sénégal yaa ngi doog a dégg ñu askan wi wax leen dëgg te yàlla tax kon ngeen xam ni dëgg la. waaw ak maanaam. léegi ñun bi ñuy naan làmmiñu askan wi. ak même pas un fu mu agsi kon ñu xam ni dëgg la te yàlla rek a tax xama làmmiñu askan wi mooy maanaam lu nga xamante dëgg la te yàlla rek a tax à la base comprendre mhm. te tey si tey maanaam askan wi day wax. askan wi dafa sonn askan wi du kóol yi kase internet de non askan wi mi ngi si medd boo génnee si mbedd bi ñi ngay romb maire jaaykatu caaf yi marchand ambulant yi turkatu mbalit yi buujumaan yi yaa ngi dëgg maçon yi menuisier yi loolay askan wi looloo tax ñu naan askan wi li si mbedd bi te ñooñu macha allah alhamdulilah fu ñu génn dañuy tóojal bu ñu mais mais léegi dañ lay toojal waa d'accord Khalifa mais tontu ñu ba xam yow euh, da nga tuddee sa bopp activiste comme ñoom Guy Marius Sagna comme ñoom euh, Abdou Karim Gueye ainsi de suite waaw wala déet comme ça on avance ñu xam yow ban casquette nga yor carrément parce que génn nga ci cadre rap yaa ngi ci beneen cadre. man daal mooy li ma la wax musuma revendiquer ne activiste la mais bu fekkente ne ne man li may défendre cause yi may défendre ak di ko xeex pour intérêt Sénégal activisme yaa ngi dégg. Mhm. voilà mais à la base man. Mhm. artiste rappeur la porteur de voix làmmiñu askan wi. combat yi nax bëri nañ. yi pour suñuy valeur. Mhm. suñu intérêt diine. ak suñu intérêt économie sénégalaise comprendre na. waaw te yaakaar naa képp ku nekk ci combat di ci wax rek activiste la quoi kon. mais mais mais mais mais Khalifa saaga yi ngay saaga ci internet bi tamit. non non foo ko teg xam nga tey si tey bu jeexee. gisoon nañ fi ay phénomène Assane Diouf. bu jeexee jeex na ñii nekk États-Unis di saaga di saaga bañ indi leen Sénégal comme sax mais comment se fait-il yow en tant que euh, Khalifa Ba ak fi nga bokk ainsi de suite nga nekk ci internet bi di saaga ay autorité di saaga say nawle di saaga n'importe kii alors que mën nga wax euh, li nga bëgg a wax mën nga euh, lancer ce message sans pour autant tamit nga tooñ. saaga yi ngay saaga si internet bi foo ko teg. mooy lu ma la wax may la bu jeexee jeex na. luy bu jeexee jeex na mooy maanaam. Mm. man xëy na ma daan saaga. xëy war na def ay weeri weeri weer yu bëri wala at si ginnaaw wala deux ans si ginnaaw est-ce que yaa ngi dégg. Mm-hmm. Oh, yàgg na. non si drapeau bi li waaw loolu drapeau bi si ginnaaw la non non bu mujj bi. bu Wally sekk bi waaw. waaw rek saaga nga ci Wally Seck fonante bi fonante bi. saaga fi ay nabu dash. déglul rek fonante bi. waaw bi. loolu tey si tey jamono boobu noonu loolu yàgg na ay weer la si ginnaaw du dëgg. Mhm. te rëccuwuma dara man sama waxu démb mooy sama waxu tey te mooy sama waxu suba incha allah li ma lay laaj mooy. waaw Khalifa li ngay ne nee nga yow yaay làmmiñu askan wi. Euh, nee nga porteur de voix nga nee nga da nga dem ba gis. waaw mais tey si tey dama euh, valeur yi dafa dañu am problème de valeur au Sénégal maanaam askan wi tamit sonn nañ donc yow da nga war a ay valeur maanaam di wala influencer les jeunes ñuy gis si yow lu baax loo xam nañ ko topp mais suñ gisee benn xalifa euh, dem ba am benn audience bi ñu bari di la bàyyi xel ci internet bi euh, ci réseau sociaux yi ainsi de suite ngay taxaw di saaga ñoo xamante ni defuñ la dara di leen saaga ndey est-ce que tamit loolu du du du du la contredire par rapport ak yow li nga bëgg wax. waaw xam nga tey si tey. est-ce que ça colle ak li ngay wax tey si tey ku dee si marché bi yaa tàgge di influencer sénégalais yi si lu bon di influencer samay rakk mhm. ak samay jërbaat ak suñuy doom yi di ñëw si lu bon ñun tamit saawaay xoola ñu génn wan askan woowu ni kii du dara moo waraloon gaa yooyu noonu ñuy saaga seen ndey waaw déglul lekk tey si tey loolu xëy na bu jeexee jeex na parce que toll nañ foo xamante audience bi dépassé na booy jeunesse bi dafa dem kilifa yu bëri di ñu déglu te kilifa bu ñu déglu ñaan ñu mhm. pour ñu bàyyi saaga moo tax kilifa yooyu ñu jox leen seen cër jox leen seen wàccuwaay ba waxoon ni bàyyi nañ saaga te ba tey nii ma wax yow bàyyi nañ saaga est dégg. man bi may xalifa bàyyi ah, man ba saaga man man bi may di saaga def na ay weeri weeri weer si ginnaaw yow nga fi ki ngay wax nii xaw ma xaw man tey si tey ki ngay wax nii. waaw dinañ si ñëw boobu sax man tudduma turu. vidéo boobu noonu. xëy na yoon fu may daanelee mooy photo. <laughs> est ay dégg. voilà photo mais vidéo bi doo ko mës déglu ba dégg tur ma tudd tur. mais man du ma tudd turu caga. waaw ay dégg fii caga caga la. yaa ngi dégg ki nga wax yow yaa ko xam loolu yow la man kooku saxu lijjantiwu ma ko mais mooy li ma la wax ku dee si marché yaa tàgge sa bopp boo ñëwee publiquement di jaay dëgër bët di jaay wowle ah. naa da ngay wax di influencer ndaw yi si lu bon ñun ñu génn démasqué la wan askan wi nii nga mel yow yaay kan. mais saaga yi au début lan moo ko waraloon lan moo taxoon nga doon saaga danga doon inspiré wu si phénomène. Assane Diouf wala da nga bëggoon bëggoon am xëcc gars yi ñu lay. suivre avant Assane Diouf waaw. avant ngay wax nii. man yi may wax maa ngi wax internet du fen internet am na date am na lépp dem leen ngeen xool yi yaa ngi dégg. Mhm. voilà tey si tey mooy lu ma lay wax man saa waa ji xoola lépp man lu may exprimer wu dama koy wax muy dëgg ci yàlla rek a tax man du ma tricher. mais Sa Gueye lu ko waraloon. waaw ah, mooy lu ma wax man mënu ma damay nekk si internet bi di publier muy publication écrite wala ma vidéo wala lépp su may exprimer wu damay exprimer wu en tant que tel li may ressentir laay génnee est-ce dégg. Mhm. du ma tricher du ma dem parce am nakaru xol quoi booy li am Sénégal ba nii may waxee ma metti booy. booy Sénégal booy saa waay man je suis pas mécontent et je suis un grand mécontent booy je suis un mécontent de par ce qui se au Sénégal yaa ngi dégg comprendre nga. Mhm. voilà moo dax may siisu quoi. di saa loolu. waaw déggoo lu ma bu ma bu ma leen bu ma jàkkaarloo woon ak ñoom sax day gën a metti. mais nga saaga yi wala bàyyi woo saaga bi may def vidéo su ma doon su ma doon def vidéo nii saa waay jàkkaarloo ñoom. gan di cravache laay jël. saa waa ji wala fil yooyu noonu filu courant yi saa waa ji di def vidéo ba pare saa waay xoola wax wax li ma wax si vidéo ba pare jàkkaarloo ñoom di leen koo fëgg di leen ko caw. parce que ay nit saaga yi mooy lu ma la <laughs> booy yow nekkuma booy yow carrière compliqué quoi <laughs> sama technicien mi ngi toj comprendre ma de <laughs> mm. dama ni la mm. man damay exprimer wu saa triche manuma tricher man je suis sincère booy kon boo encore mais ay kilifa ñaan lañ la ba nga ne. ñaan nag moom moo tax léegi vidéo yi ba lii may wax ak yow vidéo yi day wex xàtt dëgër. dëgg bi te yàlla rek a tax mais doo si dégg saaga. Hmm. xëy wax bi dina dëgër wow kongu yaa dégg waaw mais doo si dégg saaga incha allah. lan mooy sa relation xalifa ak euh, Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz dama ko doon liggéeyal mu may fay. ñu dem ba benn jamono. mu may jaay doole teg sama kaw injustice injustice moom laay dénoncer si mim réew. Barthélémy Dias. loo ko doon liggéeyal. garde corps laa ko doon liggéeyal. yow garde corps nga. man garde corps international la. kon gars naan la xalifa utile liggéey moo gën nga nekk si internet bi. di saaga loo leen di tontu ñooñu xamuñu nu mu demee. Mm. nit boo ko xamul xamoo ko. ngeen màndu te ngeen noppi. di wax loo leen maîtriser ñun li wax si dëgg bi yëpp dañ ko maîtriser ñun du ñu tuumaal. liggéey. déggoo lu ma la wax. ay liggéey garde rapproché ay liggéey ay liggéey maanaam say business yu bëri nga am di ko def jàppale doomu réew mi pour ñuy am liggéey kañ geen wala boog saa waaj yi man maa modeste wàccee sama bopp nii gaañ lu ma lu ma def ma mais noon naa dajale gars ma lijjantil ba ñu am job ma leen di naan ne daf leen. parce que ñu naan mais xalifa na dem uti liggéey baali Wally Seck mi muy euh, saaga bàyyi président bi muy saaga ainsi de donc leer na da nga doon liggéeyal euh, Barthélémy Diaz comme garde rapproché waaw waaw ma koy liggéeyal mhm. teg sama kaw injustice injustice moom laay denoon Sénégal te képp kuy def sama kaw mais ban ban injustice ak naka la demee foog nga expliquer ñu tamit Khalifa ñu xam. parce que abus de confiance. maanaam daf ma nax. waaw xam nga contrat lépp contrat contrat écrit la wala contrat moral. Mhm. moom booy xool bu ñuy job contrat moral la parce que daf ma naxee sama papa est ay dégg waaw ba pare ñu dem ba biir. dem ba kanam moom gel yi muy jël di embauché di embauché ay gel lépp gaamal la sum waay booy xam nañ bu baax nu mu demee est ay dégg di jël ay jël yoo xam ni saawaay xola xoola befem sax amuñu ko mu leen di jël di leen embauché di leen defal ay embauchement ay contrat lépp est ay dégg xam nga si koo xamante nii man saawaay waay xoola j'ai fait les bancs j'ai appris booy maîtriser réew ni muy doxee man tey si tey waxuma la sax mairie mais ministère rek état ak yooyu noonu yëpp ñun xam nañ ñu muy doxee te mun nañ ci gérer lu bëri est-ce que ay dégg mm. mais nag ak garde rapproché loolu xëy na ñoom ay complexe nañ dañu nekk ay complexe moo tax ñuy xeeb ne ak kii de simple garde corps la est-ce mhm. ay dégg. nangu la fay daanu mhm, mhm. daanu ma fay lu baax te loolu sax man maa maa xool coloré est ay dégg. te lu ma gënoon metti chaque mois ñu dagg sama xaalis trente mille francs di ma ko nëbb. mais dëgg mooy mujj keroog bu mu demee ba kalaatee est-ce que ay dégg. ñoom saa yi war nañ xam ni dëgg rek ay mujj te am na ñoo xamante ne nii saa waay injustice doo ko teg seen kaw. même bu dee ay dix ans la vingt ans sax bés dina jot gaan xoola yàlla leeral lépp ça va ñun dëgg nañuy dund mais problème bi lan la euh, Barthélémy euh, da nga dem ba jàpp ni lim la doon fay dafa tuuti wala wala. qu'est-ce qui se passe wala wala da gis ni muy géré mais ba benn jamono. Mhm. li ñu diglan diggante woon si ay job ëlbatiku. def ko parce dafa ma ne woon suy génn la woo pour ma ñëw ñu ànd. lu dëgg. Mhm. ñu dem ba benn jamono mu ne non léegi dee leen ñëw mairie quoi comprendre waaw ñu commencé ñëw nekkatul woon sax après affaire de job garde corps bi dafa dem ba nekk affaire de famille ñuy ñëw si mairie bi nekk comme genre employé mairie. Mhm. comprendre na. Mhm. di nekk si mairie bi di ñëw si mairie mairie bi si dem déguerpissement ñuy dem. si mhm. déguerpissement yi. mairie bi def ay yenn activité soxla sécurité ñu dem teewal fa yaa ma gën a xam comprendre na. xam nga loolu tey say di ah, mosuñu ko ah, ah, waxante si job mais xëy na dañ dem ba affaire bi nekk famille ñuy xool coloré. léegi dem ba benn jamono job bi bëri te li ñuy fay noonu mooy loolu wéccit la saa yu ñu ko jotee deux jours lay def si ñun trois jours ñëw wax ak moom pour pour mu yokkal ñu xama mu ñuy gëmloo ko ni non jàpp leen si ngeen góorgóorlu dina baax quoi après naa ko gérer. Mhm. xam nga mel ni kuy jéem a saawaay naxante xale bu ndaw quoi ku ñu foog xale bu ndaw est-ce que yaa mhm. waaw te tey si tey ñun xam nañ lépp nu mu demee. waaw lépp nan la demee léegi nga jékki-jékki def say vidéo clash Barthélemy Dias alors que daan nga fi xalamal Barthélemy Dias boy da leen dëgg nii rek man musuma ko xalamal daan nga xalamal Barthélemy Dias di ko supporter supporter xam nga mooy lan moo ñu teg si kawam injustice ma gën a dénoncé loolu mooy waaw parce que injustice ma ñun di injustice munuñu ko munuñu ko muñ munuñu ko toogaaleel comprendre na kon bu defee suñu kaw injustice ak képp ku munti doon dañuy génn dénoncé ko loolu kase la est-ce gars yi leen dëgg nii rek seen tur ñoo fi nekk gars yi ñuy wax di tëbaka dal xabar xabar di tuwaaw mooy loolu. léegi foo mujjee dara ñoom tous des politiciens. Ah. li ñuy dénoncer ci Macky Sall ñoom noon nañ men politicien wala chien politicien. Barthélémy Dias ma maa ko wax sama baat sa kaw na ñëpp mer man ma desax sama dëgg. kon yow da ngay ko ne sàcc la sàcc c'est un politicien Barthélémy booy il m'a déçu. est dégg te man booy man du ma ragal de man nag may tëral ren ni ma lekk mais ñoom xam nañ bu baax sax nu mu demee ñoom ñoo la gën a xam wala boog injustice ku ko teg sama kaw saa waay xoola ak képp koo munti doon saawaay waay du ma la ko mës a nangul mhm. Barthélémy Dias politicien la du gat du dara yaa ngi dégg xëy na amaana ñu ngi tëbaka dal naan mairie Dakar mairie Dakar 17 milliards u mairie Dakar bi kese la teg bët yaa ngi dégg maire moo sare kër bu ko suñu cour de contrôle yi A ñu jàpp ko épinglé ko moom. est-ce yow li ngay wax nii euh, daf ma leer nañu yaa ngi koy pesé xalifa. yaa ngi koy pesé na ma waaye dëkk bi am na yoon. Hmm? wala boog dëkk bi am na yoon booy. on est dans un pays de droit. Hmm. yaa ngi dégg est-ce que tamit am ngeen problème lu ko si metti wala lu ko si kii na dem na porter plainte bu ñu demee si yoon saa waay ñu leeral yëpp ñun tey si tey xool kóolare sax. Hmm. ax maanaam xool yu bëri. moo tax sax moom yóbbuñ ko yoon mais moom dañ ko naroon yóbbu yoon. parce que bi ma génnee ba dénoncé noonu ay sénégalais yu bëri dañu dajaloo ñëw def ma signe ne ma xoola saa lii ak lii ak lii la ñu def booy di ñaawlu nu mu leen dàqee yow ñoo xam ne yow bu ñuy am embauchement ci maire bi nekkagoo sax maire nga ñëw toog nekk maire parce que ànduñoo ak yow nga dàq leen est-ce ay dégg jaay leen doole. Mhm. tey si tey ñi nga dàqoon ñi nga jaay doole yëpp dajaloo nañ ñëw wax ma ko ba tey si tey xoola jamono boobu noonu. Mhm. tribunal travail laa naroon dem barki alxuraanul karim mais ginnaaw yàlla xoolal sama papa ruus xool yeneen action yu bëri. mais est-ce que loolu tamit loolu tamit est-ce que tamit yow doo doo gis nga groupe WhatsApp bi xoo xoo xoolal groupe WhatsApp bi liiral mm, mm, mm. liiral groupe WhatsApp bi stop injustice de Barth du gis nga stop injustice de Barth gis nga participants yi si nekk gis nga ñii la sumuwaa yi barki alxuraanul karim gis mm-hmm, nga mm-hmm. ñii ñëpp Barthélémy Dias da doole est-ce que yaa mhm. jaay doole gars man la sum waaye leen jaay leen affaire jaay leen parek ñuy ñëpp laa naroon dajale xoola ñu yóbbu leen tribunal travail ñu yóbbu ko tribunal travail woon ko ni xoola. léegi lan moo tax Sénégal fii dëkku yoon la waaw mooy lu ma la wax rek. mais est-ce que tamit loolu xool xool. Mhm. xool maanaam action yu bëri xam nga man tey see dama am kilifa yaa ngi dégg dama am kilifa quoi. nu nu ma gisee nii saa waay. Mhm. noo koy gérer le fait que. Euh, baax na bàyyi wax ko ni saawaay fii dëgg mooy mujj ya xoola laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñun saawaay balaa ñu lay dëgg di la xamax lëpp ñu ngi coob ba suur di sant yàlla dëmb tey ak si nañuy sax est-ce ñun yàlla nañuy dund mooy wax suñu wërsëg mais mais mais mais est-ce que li ngay def ni ànd na euh, sa papa maître Ba nekk avocat wu Barthélémy Diaz yow ngay xeex ak Barthélémy Diaz nekkoon na avocat am nekkoon na nekkatul avocat am Eh, tey si lan moo dindi loolu. loolu boo boo ko gisee ngeen laaj ko man loolu sama new si. mais moment bi bi ngay attaqué Barthélemy sa papa mi ngi nekk. avocat wu Barthélemy Dias non non non mais demeewul noonu. nan la demee. xëy moom bàyyi sax maanaam ba xëy na sama papa nekkatul avocat am moo tax mu ne parce que amul colère colère ginnaaw lay fédee. Mhm. waaw nokk nañ ko si kaso bi Tamba. ay mbokkam sax ñu ko seeti di ko lijjanti. kon oh, sama papa dafa yàgg sonn si moom moom mu doon gor saa waay su ma siisoo nii sax laa lay wax nii day ñëw ne non kii sama rek la bàyyi ma xool lu ma koy jàppalee du dëgg waaw mais du gor dañuy sóob rek di tëbaka dal du ñu dara dëgg naax mooy mujj. Mhm. voilà léegi ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi. siiw seen moom la ma Sadima ay waxam dama may siisuloo. <laughs> voilà mooy loolu. mais foog ñu laaj la si Barthélémy Dias. tamit tamit Barthélémy Dias noqu man faalewu ma Barthélemy Diaz lijjantiwu ma Barthélemy Diaz ñu ngi man si un sénégalais waa man sama surtout Jal Diop laa direct yaa ngi dégg si hmm. sama yaay yaa ngi dégg sama yaay lébu xoolal ndakaaru njaay jël jóob xaa yusu jóob bu gël tàppe moo jur sama yaay man tagg sa bopp de non damay wax rek man fu ma bokk yoon xalifa di sa bopp xaa yusu jóob bu gël tàppe bi moo ko moomoon waaw bëri ay titre foncier gël tàppe Médina est-ce que dégg mhm. kooku moo jur sama yaay kon man kan moo ma gën a bokk si réew mi ab Cap-Verdien Cap-Verdien jugee fee man dina ma gën a bokk si réew mi man wala bokk ah bon ma jaay ba Barthélémy boo may wax ay waxam booy émission bi sax mun na yàqu kooku doomeraam la. du dara ñu ngi jéggalu baax a ngi suñu ah. ah. la ville en parle. xalifa saaga yi mën na ñàkk saaga na ñàkk ay pistolet ay yii nii naan na ñàkk ñu ngi jéggalu baax du dara ma maa ko wax léegi naka gisee affaire euh, kilifa ak euh, affaire ñoom kilifa ñu leen tudd ci ay affaire euh, Euh, passeport euh, trafic de passeport ban xalaat nga ci am. ñu ngi ah, jéggalu nag si saaga yi affaire privée la. waaw affaire privée boo xamante ne nii maanaam xëy na seen sor wala ñoom li ñuy xeexalee Sénégal. Mhm. nekk ay activiste te kenn falu leen kenn dénku leen alalu sénégalais yi du dëgg. Mhm. waaw au contraire ñoom ñoo ñëw bëgg seen réew nekk ay porteur de voix bu leen neexoon. Mhm. du wax si. si si a ah, si si si Sénégal bu leen mhm. neexoon. Mhm. ñu yam seen musique du dëgg dem lijjanti seen i ay ah, ah, voilà lijjanteex état xol ni ñuy lekkee su sénégalais yi xam nga dem mhm. noos seen noos mais defuñu ko dañ ñëw ànd ak askan wi. di xeexal askan wi. xeexal askan wi nax moo tax ñuy dënk suñu réew nga xam ni dañuy noot askan wi di leen xeex. fii saa waay activiste toq mafia boo ko defee gars yi ñuy dal sa kaw di nga la dool yërmande. Mhm. te ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi. Mhm. am nañu ay ndaw ak maanaam ñu bokk si ñoom ñoo xam ne ñu ngi def ay jëf yu gën a salte gën a doy waar faux billet faux yow ngay rey économie. kon yow kon li ñu jàppee ñoom waaye eh, kii. ñoom dama ne la dama ne la. Hmm. kumba am ndey kumba amul ndey bi nekk si réew mi loolu laa ñaawlu. dóor doom làq doom. tey si tey xam nga ne ay sima wax kilifa ok même bu dee donte ni def nañ ñi ngi si kaso bi du dëgg waaw li ñuy ñaawlu kañ mooy ñi nga xam ni def nañ lu gën a scandale lu gën a crime que lool noonu parce que booy ay faux billets yooyu booy loolu crime la faux nga ngay da ngay rey économie sénégalaise booy mhm. ñu lijjanti la xanaa xanaa wax boobu kii ko moom moom député bi ngay waaye dama ni la booy ñooñu booy si kaso bi da nga leen war a yóbbu seen place kaso bi la yaa d ay député yoo xamante ni nii gaan jàpp nañ leen si affaire u passeport yi tey say déggatoo ko sax mhm. wala boog mhm. ñu ngi bëgg suul affaire boobu noonu te ñooñ seen place kaso bi la wala boog boy Sénégal li fi am dafa ñaaw quoi mooy lu ma la dóor doom làq doom loolu noonu nax moo nar a taalaat réew mi ah bon lu garaaw laa lay wax nii. kon gis nga ni liñ liñ liñ liñ jàppee ñoom kilifa ainsi de suite war nañ mën a tamit jàpp ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci biti. waaw ñi nga xamante mais mais cautionné woo quand même ñoom liñ leen jàppee. waaw loolu moom mooy li ma la wax loolu lu yàgg am Sénégal la. waaw. waaw loolu moom. lu léegi am na tamit yeneen ñaari député yoo xam ne ñu ngi leen di tudd ci affaire passeport diplomatique. ba war a dindi seen immunité parlementaire. ba léegi déggoo ñu ne dindi nañ ko. Mhm. ah ñu ngi ci de ko sax. ñu ngi ci. xam naa ñooñu moom seen sëriñ yi baax nañ ko waa <laughs> déggatoo leen fenn de. Mhm. déggatoo leen de. mais ñu ngi ci. Ah, commission bi dindi immunité bi pour xam naa ne moom gars yi waxatuñ si. Mhm. waaw gars yi waxatuñ si di laaj fu mu toll. te tamit ñeenee tamit waxuñu lu leer ñi ñi war a teggi seen immunité du dëgg mhm. loolu gaan jarul ay loolu bu ñu ko naroon teggi teggi nañ ko bu yàgg fii gis nañ Khalifa Sall si kaso bi nañ ko dugal doo koy teggi immunité am du dëgg mhm. voilà Ousmane Sonko immunité am bi koy teggi dañ ko fas track fët fët la ko gars yi lijjanti yaa bëgg a xam kon mu ñuy yàpp ko waa xama voilà ñun duñu ay ngaaxa. gis nañ tamit xalifa dangay ngay xeex wàllum homosexualité fii ci Sénégal. doo leen may dara ci internet bi. waaw waaw lu ko waral. depuis yi moom mooy lu ma la wax man su ma amoon saawaay baat si réew mi wala su ma doon dogal si réew mi depuis bu ñu jàpp say xuur nañuy ñëkk dagg yaa ngi dégg <laughs> say xuur nañuy ñëkk dagg pare xoola takk sa ñaari tànk ci camion yaa ngi dégg mhm. waaw wala si bus teel a di la dëri Dakar ba Ziguinchor wala Dakar Thiès ak Dakar Thiès sax na Dakar Tëngéej sax nga wàcc. Mhm. du dëgg. Mhm. góor jigéen baaxul booy saa waa ji góor jigéen xasbuna allahu wa ni'mal wakiilu deux puces baaxul si réew loolu booy moo taxoon ñu dëpp suuf si jamono yoon ci yàlla lóot yaa ngi dégg réew ni mu méttee yeex sobe si bëri si gaamal la sum waay xam nga problème yii nii yëpp booy ñoom ñoo ko indi booy saa waay parce que ñooñu mooy lu ma la wax bu ñu jaaree si koñ dëgg tànk. Mhm. yow xamoon ni sax fii deux plus jar na fi nga romb si koñ boobu dëgg fa tànk mhm. tey si tey quarante jours booy ñu ngi lay rëbb yow boo si dee sa safara xaj na si te amaan jullit nga yow doo deux plus yaa ngi dégg loo mhm. ñaan yàlla si quarante jours yàlla du la ko nangul kon nga gis danger boobu ñooñu yàlla moo leen alag maanaam sayaatin sayaatin benn jinne bu gën a bon seytaane bu gën bon ñooñu seyaatin boobu mooy seen rab mooy deux puces ñoom dañoo alku ñoom mhm. baaxuñu deux puces kon looloo tax nga koy xeex waaw di leen saaga di leen clash doo leen may dara islaam mhm. seen lobby bi muy deux puces LGBTQA bi mhm. malheureusement ñu seetaan ba mu ñëw Sénégal booy lobby boobu seen drapeau yëpp xoola maa ngi koy taal taaloon naa ko si marche deux yi donte ni dama tardé woon tardé woon maa ngi ñëw si fin bi mais taal naa ko. indi nga drapeau bi taal ko. taal ko fa. Mhm. internet du fen mu ngi si internet. Mhm. taal naa ko si sama vidéo single saafara jamono tey. Mhm. te naa continuer incha allah di ko taal. di nga ko fi mës a nangu. yaa ngi dégg te di rafetlu tamit ànd sàmm jikko yeex ñeneen ak ñeneen ñëpp ñu koy xeex ñu ngi koy rafetlu. di rafetlu tamit xale yi nga xamante yi ñoo génnoon ñu leen doon ko jàngal seen école ñu génn. di macha allah alhamdulilah yéen ñëpp respect ñun ñooñu nañu ndamoo di leen tiitaroo ok. voilà ba xalifa euh, yi nga xamante ne nii saawaay <laughs> ñu ngi xool ñu ngi xool lobby mhm. wala ñu ngi xool lobby homosexuel bi xaalis bi ngi leen di jox ñu koy encaissé xam na ñum demee ñu koy encaissé yow xam nga leen yow xam nga leen waaye dama ni la mm. saawaa ji mm. marche marche marche ànd saamu jikko yi mhm. manifestation bi mhm. Ousmane Sonko na nga si gisoon booy dañ nga koy tóojal Ousmane Sonko moom mais respect waa mais yeneen politiciens yi ñëwuñ politiciens yu bëri ñëwuñu dañoo encaissé ah du du ñëpp encaissé de mais am na si ñoo xamante ni duñu sax wax si ñooñu. Mhm. waaw am na si ñoo xam ni duñu mës a wax si affaire u deux bus yi parce que ñu ngi xool alal bi nga xamante ni lobby yi nañ leen ko financé pour ñu nekk maire wala pour. ñu nekk président yow deux bus bu ñëwoon jox xaalis doo jël. <coughs> jamais de la vie. Hmm? yow saa waa ji man du ma toog ak deux bus <laughs> yow bu ma leer yow booy yow booy yow xas bu la laaw ni ma la kii yow jaay pare nga quoi. xalifa xalifa euh, temps bi sax bareetul mais en deux mille dix neuf wala bi ñuy préparer élection yi euh, doon nañ la tudd ci benn moto bu ñu sàcc ainsi de suite ba tëj la ci kaso bi euh, dañuy ñëwaat juste rek ci condition wu détention prisonniers yi jot nga jot nga jaar rëbës lan moo la gën a marqué ci condition yi nga xamante ni moom moo nekk foofu juste une deux minutes. waaw rëbës moom. Mhm. vraiment moom da war a tëj. cent mètres dañ ko war a tëj. waaw waaw parce que foofu moom saa waay du palaasu nit. Mhm. foo xam ni tubaab yi jamono yu yàgg yi ay fas nañ fa doon denc. xam nga la wax Moustapha Cissé Lo bi mu ñëwee cent mètres chambre dafa dugg rek saa waay di jooy. Mhm. génnaat di fii sama xar yi fi ma leen di denc sax moo mhm. gën fii. yaa dégg rëbës. booy ba rëbës baaxul booy. c'est une insulte yow fi ñu la dénkoon ba ban genre chambre lañ la dugaloon. si paquetage yi wala fan. man treize laa ñëkk wala dañ la defaroon chambre kii quoi. trois hmm. jours hmm. trois jours laa def treize. jugee hmm. treize. lundi. boobu xalifa Sall maa koy nuyu. papa la si man. respect mu yóbbu ma 44 moomu lijjantil ma dem 44. 44 jamono boobu noonu moo doon xëy na. palais ka palais cent mètres. Mhm. parce que jamono boobu dañ tëjoon Apala. Mhm. doon ko tabax. 44 la gaa yëpp nekkoon. Mhm. yaa ngi dégg 44 instant moo gënoon si kaso bi booy xool. si chambre maanaam foofu moo tane woon. moo tane woon si chambre foofu ñaata ngeen di nekk guddi bu jotoon ñëpp daan nelaw. Ah, ah daan nañ fa nekk foog naa bu ñu bëriwaan ba bëri 44 est-ce que du nekk 80 personnes. 80 personnes mais daal ñëpp daan nelaw donte ni dañuy paqueté yenn gars yi sax xam mais nelaw bi kaso bi dafa xat booy saa waay cent mhm. dafa xat te cent mètres wóorul da ngeen chambre boobu à ah, ah, xaw ma courant kii amoon fa. ah électrocution. waaw mhm, mhm. ah, parce que courant moo ko indi. te si tey booy kaa ma la yenn chambre yi bu xëyee mbabu bu mu leen jaaxal de. yenn sénégalais yi waaw. ma la ay maanaam Amnesty International ñooñu noonu booy seen liggéey Sénégal booy booy saawaay wala ñoom loolu ñooñu. ñooñu waaw ñoom Seydi Gassama moo tax kenn déggatu leen quoi mais pourtant koy dénoncer de. non Samet da ko war a tëj amul dénoncer Samet da nga ko war a tëj quoi. pour yow rëbës dañ ko war a. rëbës dañ ko war a tëj. raser ko def ko leneen wala même bu dee dañ koy defaat kaso ñu tabaxaat ko. comprendre nga. Mhm. waaw chambre yi bees yi ñuy tabax. chambre yi ñuy wane xalifa si internet bi. di wane nit ñi comme genre paquet comme sardine na est-ce que loolu dëgg la noonu la. prisonnier yi dina la paquet moo lay féetee bopp yow say tànk féetee ko bopp. ngeen paqueté da ngeen di collante paquetage boo déggee ñu paquetage. day paquetage comme ça. sardine ñi nga sardine boo ko ubbee. sardine ñi mm. gisee nii. Mm. xam nga dañuy. xam nga serre yi dañuy collé. Mhm. mais benn bu ne noonu la demee nax noonu la ñuy dundee paquetage da ngay collante nii. léegi en cas boo ko defee deux jours am toxorom mboose. xam nga toxorom mboose. <laughs> toxorom mooy feebaru kaso deux jours nga fay def. lan mooy toxorom mboose. mooy sa yaram bi day génnee ay picc rek da ngay mel ni comme genre wagal rek. Mhm. comprendre na. Mhm. waaw parce que wàllante bi soo ko sax sa yaram bu seexloo mu nga ko mun nga ko am yaa ngi booy 100 mètres baaxul booy garde yi bu ñuy ub buntu yi la daw arrière ndax xasaw. ndax xet gi génn foofu xet bi léegi besoin yi naka lay demee ku war a dem besoin. toilette toilette dina am toilette mais toilette rang bi day gudd. ngay rang ba sonn xam nga nga war a nga yambale boog. waaw ñëw gaan war a dugg si douche bi ñëw taxaw fekk fa rang booy dix personnes jiitu la. da koy def sa tubay néeg bi kenn du nooy. booy 100 li fa am dafa ñaaw de. lekk gi naan gi mhm. booy dignité humaine booy nañuy piétiner ne dignité humaine nañuy saaga booy barki alxuraanul karim foofu baaxul booy te tey si tey ah gars yi dañ koy de gars yi fay dee noonu yëpp pour yow. Mhm. yàlla da koy tempa loolu dafa ñaaw si dafa ñaaw si réew quoi bu mel ni senegaal Dakar capitale. Mhm. kaso yi di mel noonu booy est-ce que gisee kaaw Cheikh Niass moom mi euh, décédé si loxo yi takk der. loolu tamit da koy dénoncé mooy mhm. jaay doole bi rek. fii laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla kase fi ne fii saawaay ku fiy jëm a jaay affaire wala jéem a jaay doole wala dara toos barki alxuraan ba zina ñëw mu xëpp sa xaw lu waay def boppam lu waa rend si loxoom lay naaj est-ce yaa ngi dégg mhm. tey si tey booy takk deri booy si ñu koy def takk deri sax moom gaa bëri na si ay maanaam ñu nite nekk nit mhm. xam ni tenue bi kat pour askan wi na nga war a solal di jàppale askan wi taxawu askan wi yërëm askan wi ñooñu ñuy ndamoo leen respecté leen jox seen cër mais takk der yi nga xam ne ñuy jaay doole def abus de pouvoir abus d'autorité di jaayate doole ñooñu ay caapataat nañ du ñu dara ñun du leen mës a respecté. <laughs> non léegi léegi Khalifa élection locale yi ñëw ngay soutenir ku ñuy wax euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba lu xew xanaa sa mbokk la. juste une minute Ahmed Tidiane Ba. sa mbokk la askanu Medina à plus de 70 pour cent ñoo ko tànn bëggu ñun lu askan bi bëgg ñun loolu nañ bëgg. xanaa sa mbokk la lu askan wi tànn ñun loolu tànn. waaw. waa déggoo lu ma la wax Cheikh Ahmed Tidiane Ba moom tey si tey. waaw Medina nañu booxu muy doom Medina ba pare nax nekk maanaam ku am ay jikko yu baax am ay valeur yu baax nax Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh moo ko jàngal alxuraan mhm. seen kër gi ñoo jàkkaarloo fee mhm. si Blaise Diagne bi mhm. jekkoo yaa ngi dégg tey si tey booy maintenant kooku la soxla pour defaraat maanaam jikko yi defar valeur yi yaa ngi dégg te kooku booy nguuru du Diouf la teddee foo xam ne depuis. moo tax ngay saaga ngay saaga Bamba Fall foo toll. déglu lekk depuis quatre vingt dix defoo tous Medina ñun dëgg na ñuy wax. Hmm. Bamba Fall bu liggéeyoon du su su su duñ ko collé motif ñun du ñu tuumaal doomu aadama duñ sosal doomu aadama Bamba Fall li mu def Medina dafa ñaaw amul benn maire bu ko def goxam yaa ngi dégg loolu dafa ñaaw te salte. mais mais ñun dañu nekk nit lekk nekk ay noble moo tax mais sinon bu amoon feneen gaan xëy na amaana gars yi màbb nañ dem jëli mairie bu yàgg. waaw mais mais mais xalifa dañu gis sa kombaay ak ñi ngay saaga góor jigéen ñi euh, franc yi ah, di clash ñëpp bàyyi woo kenn mais mais mais dañu gis ni tamit si sa combat euh, amoo soutien wu carrément sa papa lan moo tax maître Cheikh Khoureychi Ba euh, du lay soutenir publiquement wala dafa xam ne yow nekkoo si dëgg. te mu nekk avocat kuy sa avocat yow. la moo la wóor ni yow man awma sama soutien papa yow. Ah? kan mooy sa avocat suñ la jàppee. non mais man. Mm. man tey si tey. Mm. bi may jàppee mbiru politique. moom moo nekkoon sama avocat mais bi may jàppee mbiru people moom mus nga ko dégg mu nekk avocat si mbiru people. est que mus nga dégg maître Cheikh Khoureyssi ba affaire de people mu nekk si avocat avocat mu am si client musul am de. Mm-hmm. bi may jàpp récemment affaire de people la. te lu mu si waroon def def na ko maa ngi koy sant di ko gërëm. boobu lu tax nekkul sa avocat. mais soskat yeex seetaane yi ñoo profité si lool naan ay non booy bi papam sax jàppale woo ko toos. loolu dëgg la wala dëgg tontul. sama digganteex sama papa xajoo leen si kan kan mooy sa avocat. <laughs> sa maître Cheikh Ba mooy sa avocat wala du sa avocat. si dossier yi ñu lay jàppe yëpp ak yi ngay am problème. waaw ñaari dossier la moom sa jàppee benn bi. Hmm. affaire de politique la moo nekkoon sama avocat affaire de léegi kan moo doon sa avocat kon. sama cinq avocat laa maa ngi di nuyu ñoom ñëpp. cinq avocat. waaw nga am. si si si problème Nabou Dash beeg ñoom si affaire u pipe parce que yi dañu xam ni foofu dama siy remercier maître Sey bu APR. waaw di si remercier maître Tall bu Pastef di si remercier tamit samay avocat yëpp est-ce que ay dégg. Hmm. parce que gars dañu xam ni lii. Hmm. du affaire de politique. maanaam affaire u maanaam people la ay saay-saay. jël affaire bi bëgg ko mubboo bëgg ma si jaay doole bundu xatal ma comprendre na mhm. moo askan wi comprendre loolu mhm. te ñun askan wi saawaay mooy lu ma la wax du opposition kase du pouvoir kase lépp la askan wi ñëpp la du dëgg d'accord waaw kon sa waaye intérêt Sénégal en général nañu. kon yaa ngi am soutien wu maître Cheikh Khoureychi Ba léegi. mooy euh, sama digganteeg sama papa. seen yoon neew si quoi bu leen sax jéem a dugg di si wax mais ñan ñoo la jaxase ak sa lu ma la wax. waaw xanaa mais munoo leen ñu sax. mais ñan ñoo la jéem a jaxase ak sa papa. mooy seytaane yi lekk. ñan ñooy seytaane yi ràmbaaj yi fimisi yi dëmm yi naafeq yi bullshit yi kanaare yi këtt geen yi. <laughs> yaa dégg toos ñebe. xalifa taalibe bàyyi nga peut-être ñu bàyyi la nga tàggatoo juste une minute comme que ñu wax ni tamit taalibe bàyyi nga. jërëjëfee Baye Niass. Mm-hmm. Baye moom laay dund man di ko ndamoo di ko tiitaroo jërëjëfee Baye Maam Reen Sa Ruhullaahi waaw alhamdulilah. macha allah di wax ni ñun. Mhm. soxoruñu réewuñu iñaanuñu mais yàlla moo ñu bindee nii ñu dëggu ba pare di dëggal bëgg suñu Sénégal nax Sénégal nekk suñu xol ak Medina yaa ngi dégg tey si tey nax dëgg na ñuy dund en tant que porteur de voix moo tax ñuy wax pour intérêt Sénégal lépp lu ñuy wax intere Sénégal nañ siy jiital lu ñuy wax si Medina tamit intérêt Medina nañ siy jiital du dëgg du xaalis du tur du dara ñu loolu saanu fee nii chaud nii froid jaaxaluñu léegi nag tey si tey di ñaan yàlla rek maanaam ñëpp ñuy waxal ak ñëpp ñuy dégg kàddu yi ñuy comprendre di dégloo xel bañ a dégloo xol du dëgg waaw lu waaye def boppama ah, boo dégloo xol gaan di jéem a teg fitna wala dara lu waaye ren si loxo. kon mën nañu xalifa léegi bàyyi na saaga yi mais mu ngi continuer combat am nekk làmmiñu askan loolu yàgg na saaga yi moom bàyyi na nga bu yàgg mais dëgg moom moo neex yàlla te mm. dëgg moom du musa neex saawaay saay saay du dëgg mm-hmm. léegi tey si tey nax yàlla ñu yàlla may dëgg topp gars yi di comprendre amiin xam ni pour intere Sénégal la ñuy wax xalifa rappeur mu ngi si réseau sociaux yëpp tey si tey tamit combat yi day continuer incha allah ñu ngi ñëw tamit incha allah si yeneen i sound saafara jamono tey vidéo clip bi mu ngi si internet message bi jàll na pour intérêt Sénégal bi yëpp la na ko gars yi déglu suñu ko dégloogul di bëggee gars yëpp di ñaan yàlla mu saxal Sénégal jàmm ak salaam ndam tawfeex bànneex ak xéwal gu dul jeex si ñëpp fopp lépp mais nooy bëggee tamit gars yi si kaso yi waaw yi si kaso yi ñu leen di bëggee di leen encouragé leen wax ni yàlla kase fi ne te léppay jeex du dëgg waaw yàgg yàgg moom incha allah liberté dina ñëw quoi ñu leen di encouragé xam nga ngeen teg tamit delloo lépp maanaam si yàlla ji te ngeen maanaam tëdd seen kaso temps bi si ngor ak si mhm. xel bu sell di mhm. sellal te di bëggee yaatal xol yi xam a noonu la demee di ñaanal malade ñu jóg di bëggee sénégalais yëpp yuy seetaan ak yuy déglu. Mm. tos ñebe. muy buut waaw. jërëjëf Khalifa rapport ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci disponibilité di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ñuy bàyyi xel chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi ba samedi prochain ci beneen émission euh, beneen thème ak euh, beneen invité ak Ndeye Comba Moreau émission bi ngeen mën ko euh, dégluwaat wala seetaanaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf.